ci ñoom ñaar naka nga leen gisee. waaw di si teeluwaat rek di waxaat fan si pour ñu bàyyi xel man mun naa wax ni mais su jàllee nañ ko tegaat ñu xool. Hmm. parce que man nekkuma si làmb ji pour ñëw rek di làmbatu di làmbatu non non. Hmm. ni bàllay ñoom tër bi yoo bëree ba téye ko noonu laa seetaanee bëree ba commencé see wax mun naa see wax lu bëri du deñ parce que man dama du ma xool arrangé Balla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 Mm-hmm. ndax giri aada Fass ma nga Fass di fa liggéey ja lu bëri. Mm-hmm. te Fass ak ak écurie Ndakaaru daanaka dañoo boole écurie bi. Mm-hmm. di fa liggéey ay ay ay kat fa ne. ay keneen a fa ne expérience yu bëree fa ne mais géejawaay bu ñu demee ba naan Balla Gris Bordeaux xam ne baala tawat na. bu ñu demee ba naan bay laam-laamee Balla Gris Bordeaux ak ku koy laam laame Balla tawat na wala am na lu ne si Balla. mais baala mi nga xam dëgg bu paree bu laaj bu jàppee Gris Bordeaux ay mbokkam taxaw ne. man su ma déggee li nga wax mooy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 te bu boobaa mën nañoo tëj école bi ne ku dagg deux cent seetaan entraînement. bu bu boobaa day fees del mbër muy dem ñu jël si super. baax hmm. paasal ko ci cent pour cent bi.